bay ba ngoon te nga bay ba suba te nga bàyyi ba weer wi dee zarhum yakulu wa yatamattaau wa yulhihimul amalu fa sawfa yaalamuun dal na bokk na ci lii wawal ab xol dëgg dëgg mooy niig niigal jàpp ne ñi toll ni moom daal ay at néew na ñuy gis ñu fi bàyyi ko ndax ndaw la am na ku seytaane waroon te mbokk yi seytaane day war nit ci mboolem jaamu yàlla yi muy def sax su ko téyee ba di ko def dana fexe ba mu waru ca bu ko téyee ba di ko def dana fexe ba mu waru ca yal nañu ci yàlla musal kooku dafa ñaan yàlla yàlla wan ko seytaane ci melokaanam dëgg-dëgg suñu boroom xamal ko ne boo demee ci ja sàngam ab ja luuma yi am bi sangam da ko fa fek muy jaay nangam tudal nako sax lamay jaay jox ko mandar gaya mu ñëw fek mu maka mu mag mo xamne xol na xol dal maka mi dal danaka mom rek moko fi am mu wutali ko fekk muy jaay lamay jaay mu ne ko yow la soxla won ñu jóg taxaw mu ne ko xamé na la wa seytaan ne ko man de xàmmeewuma la منكم من خمان يوي شيطان من كل قوخ من كجروك أمسل وهي بيت ملا ذلك يسون شيطان دانيلكو أ آه. مكر كريب جوك دانيل الشيطان شيطان جوك فب أي بعاسم نبلون يوم خامه بدي ما صوت صوتو وهي بسوي على دوره مجلس فن mu gisaat ko feneen seytaane daaneel ko nag jël boo xam ne poids ba ko yàlla jox mënut a fexe ba yëngalu cer sax waxuma la di da wàngar ci ko génn pàkk mu ñaw ba di ko bëgg a rendi ne ko yow jëraloo ma rendi sax koo xam ne juróom-ñaar fukki at dong ko dese ci àdduna mu jëraloo ma rendi ndax xam naa yàggatoo fi mu génn ne ah man danaa fi defaat juróom-ñaar fukki at kon dey damay fab fanweeri at yi ak juróom nekk ko ci lu ma neex mos adduna tuuti bokk du ma di julli du ma tey di jaamu yàlla waaye dama koy mbakkar feggu saa bu ma noppee ci di dem ca su fanweeri at yi jeexee ak juróom juróom fanweeri mujj ya nag ma jaamu ko yàlla gu ma dul booleeg dara ndekete yoo juróom-ñaar fukki fan ak juróom moo ko dese juróom-ñaar fukki fan a ko dese nga xam ne fi jaar. ci pas-pas bu dëgër ekuk jaamu yàlla bay am àggug yàlla wan ma diw mu wan la ko su teggiwutoon tànkam mën naa gën a sori waaye dafa fàtte woon ne yàlla moo ne woon seytaane fa innaka min al munzarina ila yawmi al waqti al maalum maanaam danga nga fiy nekk li fekk nit nga defi moom nag wooru jàpp ko mu fàtte ne yàlla ne woon ne seytaane fekk nit ñaa ngi fi du fi jóge mu bëgg ko fa jëlé sañ-sañ moko war sañ-sañu gis yalla astaghfirullah wax yalla wan ma nangam mu wan la ko moo la ko tek wésu wut niig niigal bam ko né dess nga juroom ñaar fukki at su né won lepp dama koy jaamu yalla ci lu bax la ko di fekk waye yalla ñu yalla mussal ci lu ko neex dong la ko fekk ndax juroom ñaar fukki daf ko ko yokal ndeke juróom-ñaar fukki fan kese la moo tax fa taala alayhim al amadu fa qasat qulubuhum bu dana fi yàgg rek xol bu wow koŋ lañuy ñuy daal di yor tàmbalee niig niigal di waaj ak a xaar rek ba far lay xew-xew ci diggante bi yàlla nañu ci yàlla musal moo tax yonent mas naa taxaw ne kan ci yéen ñi ma bëgg a dem aljanna ñu ne teg mu laajaat ko ñu ne ko ñun ñëpp bëgg a dem aljanna mu ne ku bëgg a dem aljanna nag fawu nga yor fawu nga euh, ànd ak yatt yii ba ca jiitu mooy gàttal sag néeg néegal say néeg néeg daal bu mu yàgg lu dul xaaral ma lekk daal wala xaaral ma naan diggante boobu moom gàtt na te dem dem dem ca la nga war a def nee na ku la gën a gàtt néeg néegal mën na la jëkk aljanna waaye it ku la gën a ne jàkk ay gëtam ba du attana xef ci dig bi muy wujj suñu boroom it mën na laa jëkk aljanna ndax kooka du ne ci leneen lu dul lu neex yàlla ñetteel ba mooy nga doxale sa digganteeg sa borom kersa ñu ne ko waaw kersa nu muy doxal ci diggante koo xam ne tegoo ko ay gët mu ne kersa gi ñu doxale suñu diggante ak suñu boroom mooy li nekk ci suñ bopp bi ci ay cër nañ fexe ba benn cër du ca mooy yàlla nopp gët gémmiñ ak bakkan waaye yi nga xam ne it euh, moo aju ci yaram mi ci des lépp mu fexe ba wattu leen ñoom itam muy ay yoxo ay tànk ak yeneen yi nga xam ne daf koy jëfandikoo léeg-léeg ci lu dul ndigalul suñu borom ne yett yi daal ku la ko gën sàmm moo lay jëkk aljanna waaye ba mu ca jiital mooy fexe ba sa niig niig bañ a yàgg jóge sax ci dëkk bi ñuy wax niig niigal teg ca ne it euh, bu ameem ñeenteel saa su ne ngay fàttaliku dee ak ràpp ga ca